الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه سبيل الدوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي طالبي ñoo ngi دي نويو دي di leen ziyaare di leen jaajëfal itam ci coono yi ngeen di toggoo te yàlla rekk tax ñu ngi leen ciy sant bu baax ñaan ñu daje jeeg ngërëmal suñ borom di sant itam jëwriñ yi nga xamante ni ñoo leen jiite ci bopp liggéey bi ci doxin wi nga xamante ni ñu ciy dox ci nangu goo nangoo tënk ànd ak ñoom ci mboolem santaane yi nga xamante ni liggéey bi ëmb na ko taxawaay yi ngeen ci taxaw yépp xam nañ ko jàpp nañ ko bu baax a baax donte nun taxu nu ngeen yëngu noo bokk ki tax nuy yëngu muy borom bi tabaraka wa taala ak joxoñ bi nga xamante ni moom la ci sëñ bi joxoñ te sunu njariñ na ci nu yaakaar ko ci di ko ci wut loolu rek moo indi coono yooyu tey jii ñu ñëw wàcc si fii seet si leen seet si goo xamante ni fay tektalel rek ni am ngeen yenen bokk yu nek fanen yo xamni ne bokk lu ngeen di def donte soriyante gi amna donte tour yi wote na waye benn way rek la ñam muy dox jëm ci sun borom dox boobu nag war waram war muy def leg leg jamono tollu fo xamanteni ni danañ wacc ci dayri yi soññaat leen bëgg ñu la bëgg ñu nàmmaat pas-pas yi bëgg ñu yokkaat yitte ji ci liggéey bi ngir loolu rek mooy li nga xamante ni nun mooy mooy suñ njariñ liggéey bi nga xamante ni dañ koo bokk nag te war ci fàttalante mooy dañoo bëgg a fexe ba bokk ci benn aw déggin ndax suñ ci bokkee aw déggin dana tax bu ñuy puus puus gi jàppandi lool dana tax itam bu ñuy bu ñuy yëngutu yëngutu gi mën a mën a lëkkaloo loolu weesu weesuwut ni nas bi ki ko doon nas lislaam rek la ko doon nasal loolu yàgg naa ko wax sëriñ Cheikh mi ko doon nas lislaam la doon nasal yoonu murit wi la doon nasal ci aw dégginam ak gisinam ak yee gi ko suñ borom yee ak teel a xam gi mu teel a xam jamono moo tax mu kar jamono ci aw doxin indi nasin woo xamante ni nii jamono du ko weesu mukk te li fekk doxuñu ci itam nag coono ay bari rek waaye résultat bu ñu teg loxo jàpp ma ni dan dan dana feeñ liggéey bi nag waxtu wu ci nekk dañuy wax nit ñi ni leen la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci jaasiya sëñ Tuubaa am ko ci bopp xalimaam sëñ Muusaa am ko ci tool alal ba sëñ Seex ni loolu la ko suñu borom defal ci dayra loolu nag ngir mu mën a leer ci bopp ki ngay waxal danga koy wax jaasiyal lu ca boroom bëggoon ka doon yor jaasiyaan ndax da ko da ko doon yor ngir bëgg not nit ña wala ngir da amoon pouvoir boo xam ne daf ko doon laaj wala xaalis sa taxoon wala alal déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab message la ko suñ boroom envoyé mu war koo dox mission boo xam ne da ko doon dox mooy ay saay-saay la fi fekk yu bon yoo xamante ne xeex ak xuloo ak waxante lu ñaaw rek mooy seen yitte ku man sa morom not suñ borom ni yu bari yii nañ ta dajé ci yenn yalla muy man mi leen bind tey gadul leen seen lepp ñom ci seen bop nañ bolé seen bop ngir mëna dimbalant ndax kenn ku man dara amut kenn ku ci ne amna lo loo manqué mi ngi sa li mo doon taxaway bi bi sallallahu alayhi wasallam sallam fexé bañ wétal yalla tawhid ju set wécc nga xamni benn bur kep lañuy am muy tabaraka wa taala mom lañuy jaamu te fañ ko tek di fa teg keneen ba nun ñi du dund ñu boole sun bop ba aduna nu man ko jariño ndax loo xamut am na keneen koo xam loo mënut am na ko ko man foo jotewut am na ko fa jote te bu ñu jàppalantee yooyu yëpp benn bu ci nekk dana dana jege loolu yi moo doon rolu jaasiya te jaasiya yonent bi xëyut xëy génne ko am na doxalin wu mu jëkk a génne ndax suñu borom la mu ko waxoon mooy wan sur asirataka al aqrabina wool sa bokk yi la gën a jege nga xam ni loola moo indi propagande ci daayira daayira bi ku sëñ Cheikh di door a taxawal indi na ci ab commission boo xamante ni propagande lañ ko tuddee mooy da ngay fekk kër gi nit ki këram wax ak moom convaincre ko ci li ngay def ba xam lu muy réagir ba yonent bi tàmbalee loolu ab diir suñu borom ni ko demal ca penc ma wootee mooy boo boo waxee nit këram wootee woote ki woote kee da nga naan léegi nañ woote ca penc ma kenn ku ne jóge ci kër nga ni leen nangam la xalaat borom xalaat yu rafet ya nga doon waxal te nangul la buñ ko appuyé waa dëkk ba ñëpp mën nañ caa dugg loolu moo indi ab assemblée général ba mu amee doole nag ba xam ne am na nit ñu ko nangul nga xam ne fukki at nangam woote na ko yoo xam ne dañ koo not joggi ci kawam lu ne lañ koy def mu muñ ko ba gàddaay ñaareelu atu gàddaay ga ca la gisee ni moom mii kat am na mbooloo moo xamante ni lu mu leen digal loolu la ñuy def ca la tàmbalee fayu xaswatu badar ca la amee ca ñaareelu at ba ca gàddaay ga ca la badar am 313 personnes buñ gagné 1000 personnes pas-pasub 300 personnes yaa tax. loola bennoo ga rek moo leen ko may loola tax jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa di dund saaba bu ngeen dégg ñun leen am na ngërëm benn mooy ñeme na fet wala mu ñeme jësi mbaa ko xeej ndax booba lislaam moom xare rek la xam ndax moo ko doon may li mu am ba mu demee ba mu wóor ko ni say wi takk nañ ko te dee satu ko tas lañ léegi diine amatul force léegi nañ bàyyi nit ñi ku coobareewu ku gis diine te xemeem ko nga xam ni kon dañoo sensé waat méthode ba mooy jógee nañ ci xeex léegi dañu defar comportement yi ba ku la gis xemeem la attanu dugg ci yow ndax nit ki bu la xemeemul du ànd ak yow loolu nga gis ni kon daayira yi bu tën yi dikkee bokkulam tën yi ak toogin wu rafet yi ak bu ñuy dox di dox doxin wu yar woo xamante ni ki ngay romb ci mbedd mi dana xam ni yow mii fa nga jóge dara nga fa ndax yar yar nga say cër yar nga sa jëmm defar nga sa jikko te bu duggee ci sa biir deetu bëggatee génn la muy rëcc mooy yeex gim la yeex a xam loolu moo doon rolu jaasiya sëñ Tuubaa bi mu ñëwee fekk la ikraha fi diin am na diine desatu ci forcé nit léegi comportement ci la ñuy duggee ci diine sëñ Tuubaa fexe defar comportement nit ñi ba pare itam di jihaat ci xalimam damay wax ni bayit yi sëñ Tuubaa bind moo gën a wex quartier la bayitu sëñ Tuubaa man misil mënu ko misil man naa yàq mi mën naa waaye mënta wal ab xol sëñ waa xol yi xol yi la doon la doon jëflanteel moo tax mu ne ina kitaabati la daal am waa ji moo jilul askari wal afwaaji nee na sama bayit yi ma doon bind ci géej gi gàccaal na quartier lim man quartier mënu ko moo tax bi mu jógee ci géej gi bari na xasida yoo xamante ne nii fi mu doon nii sëñ bi xeex la ci doon def ñi xam tasawuf dañ buñ ko liire dañ dañ ko xam bari na ci xasida yoo xam ne ngànnaay la yu mu doon jëfandikoo. bi mu fi jógee nag dañuy léegi soppi na aw sama bindin law na ni lam atrukil kitaaba mujahidan ay sawil itaaba la maata bil wabaai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi xayri nee na su ma soppil woon noonu ni may binde nee na yéefar yi dañuy mujj mel ne ay gunóor say puudar nga xam ne dañuy deewandoo ci deewin wu ñaaw waaye sëriñ bi yërmaande jóg bari bi mu demee ba xam ne li muy wal nooy na mu soppi bindin wa mag ñi nag bi biñ demee ba xam ni jihaat jii ñuy def jii sëñ Tuubaa def moom soxlawu ci wéttal ndax du doom du rakk du taalibe du jarbaat du kenn ko ci defal dara mag ñi dañoo daal di seet ganeen wet ga ca des mooy xam nañ ni kii lii mu dëgmal moom mën na ko léegi ñu wuutu ko ci la ca des mooy di ko takkali néeg di ko bàyyili tool di ko dimbali ci yar njaboot gi di ko jàngaleel ak jàngaleel moo tax ba muy dem fam àgg fan leen yóbbaale bi loolu jàllee nga xam ne sëñ Tuubaa ab liggéeyam réussir na réussir goo xamante ne nii mboolem njaboot yi doon dox ci biir l'islam résultat bi sëñ Tuubaa am keneen amu ko amul genn góor yàlla goo xamante ne résultat bi sëñ am ci diine am nga ko mbaa nga séen ko te doo dégg kenn nag ku ne la sama baay at sàngam xare ba sëñ Tuubaa woowoon ca la des wala sama nijaay ca la des wala sëñ bi ma xañ boroom kër déedéet sëñ bi moom tuurul deret du du du kenn ko xamanteni ni ki songo bo xamanteni ne sëñ bee ko provoqué ci la sa amul motax ndam lu reey reey la ci am bi sëñ bi jeexalee ab liggéeyam nak sëñ Moussa ñew fekk fi ay projet yu sëñ bi naal yo xamni moy mooy ndamul sëñ touba ci l'islam te aw wooteen la wo xamanteni ni nii deetu and ak yëkkati kàddu moy projet bo xamanteni ni di wàccee kamil indi ko daje di jang xassay tok ko def ay tollaal ba la sëñ Moussa samp looloo taxoon mu ni la jóge woon ci jaasee ñëw ci bopp xalima ga sëñ Tuubaa doon liggéey léegi daje na ci tollaal bay ndax toolaal bay buñ ko wootee ki am kilo gerte dana ñëw ki am machine am dana ñëw ki am fasam dana ñëw ki yor goppam dana ñëw ki nga xam ne doole boppam képp képp la yor mën naa topp ci ñax yi di buddet dana dikk foofu lu ñuy nasal yoon wi danañ ko fa nas ndigal lu fa ñëw daanañ ko fa jottali kon ànd bi takk ko doon wenn say képp la sëñ bi bëggoon te loolu moo indi jumaa ji jumaa ji bu ànd amut jumaa ji du taxaw te jumaa ji ndamal lislaam la loo xamante ni nii ku ci ñëw danga xam ni Sëñ am na ndam ci lislaam te jumaa ji fi mu doon ni bari na lu mu dugal ci lislaam loo xamante ni nii kuy wooteel yàlla musta dugal lu toll noonu ci lislaam ñoo xam dañuy ñëw xool jumaa ji xool dayo bi ni mu toll ak taar bi ni mu demee nga xam ni lii dëgg la duy caaxaat nga tuub dugg ci lislaam kon dafa symboliser liggéey Sëñ Tuubaa bi loolu ab liggéey la boo xamee Sëñ Muusaa ci loolu la doon nase am na góor gu ñuy wax Sëñ Mor Faa Demba Kajoor la dëkk daa ñëw sëñ Moodu ni ko dama bëgg a def tool alal ba sëñ Moodu ni ko wax ko ba pare bañ du ngeen ko def bañ ko wax ko gën tàmbale ko ba ca biir ngeen bàyyi ko bañu ko tàmbalee ko gën ni ko moor mu ni ko mbàkk mu ni ko bu ngeen ko tàmbalee na doon lu yam loo xam ne da ko mën a sont te moor nag képp koo xam ne bëggoo dem àjjana bàyyi ko gannaaw bu ngeen dem ci tool ba bokk fa bàyyi kon loolu loolu la doon symbolise sëñ Cheikh dem ba xam ne nag léegi jaay si amatut boo fi rayee nit ñu tëj la ak loo mën a woote nag boo fi nit moom ci kaso bi nga jëm baneen bi ci des mooy bopp xalima la ca suñu suñ borom defaloon suñ Tuubaa moom ameen amul kaneen ku ko suñ borom defal fi mu toll nii boo doon way di jóor di tóori tax nit ñi gestu la ndax nit ñi jommi nañ ba pare dañ boo xëyee jommi ngoon jot nga jommi wat jinne ju ndaw dalaa jommal waaye bu doon ju benn yoon ngay jommee dof ba ba mu gisee jinne daar ree ba tëdd ci suuf ñu ne wax ko mu ne jinne ji xamul dara ñu ne ko amoon ni ma dof dong la bëgg te man dof naa bu yàgg ndax mom jinn ji ko jomal mu daf dong la bëggoon te léegi mom nee mom daf na bu yag motax tax jinn mënu ko jomal motax ko gis ma man dama waru xamal ni lam tasselon ci suba bay wax ni dama waru loolu mëtu ko war motax waxtu ci ne nga tollu ci war waaye bo xasse waru fim doni dal man tolo war fim doni dom du soppi ko du ab dom du ko te lu ko lal wex te dara tu ko soppi waaye fam jaara tax étape yam jaara tax mu mel non motax serigne Cheikh gàttandu jamono xamna ni yoyé mënatu la nek bay itam fem toll nit ñëpp a ngi ci taax yi te liggéeyal sëñ Tuubaa du fi jóg te danañ ko liggéeyal ci lislaam liggéey bu firndéew boo xam ne ñëpp danañ ko gis sëñ Cheikh gàttandu ko ni léegi kon faaw ñu nas mbooloo mi def leen ay kuréel ñuy yëngut loola taxoon sëñ Cheikh samp daayira loola taxoon mu ni léegi la woon ca jaasiya nekk ca bopp xalima ga nepp ca tool àll bay ci carte yi la ma ko defal fi sëñ bi defal te loolu firnde ju gàtt lay def sëñ Cheikh Mat lay bu mënee toog fii loxoom nekk ci jumaay Touba ji ñu naan def na ci 2 milliards wala nangam ak na ñu ne nekk ca loxoy Ndakaaru ñu naan jumaa ji def na ci 6 milliards te du tee nga koy dégg muy defaat yeneen ak yeneen te amul problème mu xaalis day yi la. bis bi set nga dégg ñu naan tey fanweeri dayra ak nangam indi nañ buñ la waxoon la ñuy indi ci xaalis da nga xam ne li muy def war naa mën a ne. te dayra yi seen juróom-juróom yeeg seen fukk-fukk yi ngeen di dajale képp lay doon. loolu moo loolu moo doon objectif sëñ Cheikh ci biir liggéey bi ku dem Dakar danga naan murit yi jàmbaar lañ 1140 yi ñuy laaj ña mënta joxe 1140 du tey seen 40 francs dana ci dugg wala seen 10 francs ko mën a joxe joxe ko lolu dong lañ dajale jumaay Touba ji limi reey reey buñ la waron registre bi fi newoon ci jamono suñu Moussa diw ñaari 15 diw ñetti deureum buñ la ko doon wax da ngay dang koy xeeb daan japp ni li ndax man na tabax juma waye fi doon ay jamono ngi ñew ci kanam yo xamni buñ la nee suñ Cheikh Ahmed lay daan laaj 1140 da ngay laaj te ndax 1140 man na dara fekk man na dara lolu mo doon objectif suñ Cheikh suñ Cheikh itam xamni ni suñ Touba daa war daj jamono mu bëgg dayri ci gox bu ci nek ñu tasaaroo di commentaire ci sëñ bi ngir dugal ko ci boppam ñe sëñ bi am message la indi ndax sëñ bi bu ne lakin unaadi kulal biladi woo naa réew yépp ndax réew yépp wolof la wax déedéet fii ko kulal ibadi wana jamia liip, yàlla yépp ndax jaami yàlla yépp dégg nañ wolof déedéet waaw bi bi ba kan mooy wax ak ñoom kon faaw ñu samp ay école di jàngale sëñ nit fédération bi daayira yi nag daayira bu ci ne yan ab école na fexe ba ndaw ña xam xam-xam amut limite lepp nga wara xam ndax message seigne bi dafa wara jall li mo doon objectif seigne Cheikh ci nas mbolo mi teunk ko doon mbolo mo xamanteni ni da ko nas ngir bopam nas ko won itam ngir seigne Moussa nas bi lepp yalla rek la ci doon liggéeyal loola nak mo taxone mu wax ni fepp fofu way na ci yeen di wax ci lu boole nit ñi mag yow and waaye képp ku wax lu leen tàggale tooñ nga yàlla tooñ nga ma moo tax may jàpp ni képp ku sëgg ci noppum nit wax ba mu génn liggéey bi wallaahi laa sim bala ngaa jéggi siraat da ngeen layoo ndax xañ nga ko yiw woo xamante ni mënu koo ami faneen lu baax nag yomb na ndax sëñ ci waxoon na lu baax moom am na fu nekk waaye képp ku ci wan kër gi gannaaw néew ma doo amaat lu baax de waaye lu mel ni li nga bàyyi fii moom boo ko gisaatee da nga fee dellusiwaat loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax jamonoom itam doon na wax mag ñi ni leen xeexluwuma xulaloowuma ndax man Seex Mbàkke bu ma doon xeexa bu may dóoree kenn du fayu su ma dee xuloo bu ma doon wax kenn du tontu waaye nag danaa leen wax fi ma ne sëñ Cheikh ni leen fi ma nekk mooy ki ma xool ma doy ko mu jox ma boppam ma xool la koy jariñ ma digal ko ko bu ñàkkee fayda ba bokk fa boppam rekk la koy def nee fii rekk la nekk foofee mu newoon nag foofa mooy àgguwaay ba dana jafee dem lool nag ñu bëgg ñi ñu àndal ci biir liggéey bi ñu soññ leen ñu yeesalaat carte yi yeesalaat pas-pas yi carte wi ngay jënd mooy wane ni sama pas-pas ci biir liggéey bi yeesalaat naa ko te loolu mooy li maa ngi fiy nekk lislaam laa fiy nekkal <coughs> li fekk maa ngi dund lislaam laa fiy nekkal lislaam nag ñaar mooy tax nga mën ko fee nekkal mooy da ngay wax luy boole nit ñi tey xiirtal nit ñi ci jaamu yàlla ñaar yooyu dong mooy nekkal fi lislaam képp koo dégg daal muy wax ci lu boole nit ñi di leen xiirtal ci jaamu yàlla lislaam la fi nekkal lu dul loola nag xaw man xaw ma ci lu bari lislaam yi nag képp ku ko fi mos a nekkal saytaan ni song na la gox mos a nekkal rek saytaane songu na la ndax li saytaane moom loolu dong lay bañ mooy nu ànd lay bañ nu jàmm yàlla lay bañ ñaar yooyu dong lay bañ saytaane moom la ne loo dugg d'accord na waaye ànd déedéet li fekk mi ngi fi ne faaw moo koy jëm ci ay demaleek ay fekkaleek ay foog ak yoo xamante ne ni benn sosification bu leer du ci am ci la nit ñiy taxaw ba tàqali ko. loolu mooy sunu bakkan moo nu tàqale sëñ Cheikh nee na inna ixtilaafal aara wal afham laysa bi muxtaribin fil xayaat nee na wóote ay gis-gis ak wuute ay dégg-dégg du gan ci àdduna naka jëkk mi ngi fi woon waaye nee na sirru haasal ixtiraaf nag huwa ittibaawul hawa waaye nee na tàggalikoo gii nga xamante ni moo am ci biir jullit ñi moom topp bakkan rek waral mooy kenn ku ci ne di xëcc sab intérêt su ma la ca nangu ta fokk nga def moom noonu waaye bu fekkee ànd ngir yàlla rek la dara waru noo mën a tàggale motax nubagun, nu bëgg na salat carte te xiirtal gone yi ci biir liggéey xu anfusakum ahlikum naaran na sun borom wax na ngeen fegal seen bop ak seenu njabot sawara mbir bo ci nekké te japp ni njariñ la war nga fexe ba impliquer ci sax njabot ñu dox ndax bisa ngi ñëw boo xamante ni aw xet da amatut wa isa nufixa fi suri fala ansaba sun borom neena bu ma walee bufta bi mom bu baba bok amatul kii jur ki jur ki bobu amatul déedéet kenn ku ci ne situation la suñu borom di régler boo waree dem àjjana dem fa boo waree dem sawara dem fa bu sa baay waree jëm fa ne ni jëm fa ne ni yow loolu toppatoo te loolu danañ ci àgg moo tax mu ne yow ma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibati wa banni nit dana daw ndeyam dana daw baayam dana daw jabaram dana daw ab xaritam te dara wërlu ko lu dul ay àq yu sew yoo xam ne doxoon na seen diggante yooyu na seen ceex bëggoon a effacer suñu diggante moo tax mu ne ni képp ku yor carte yi ni yow def ko ni ko bokkal ndey ak baay ko ma bokkal ndaw ba yaakaar na buma ma ko jëwee sama yaram neexut suma ma dee ay intérêt mit sama yaram neexut mo tax liggéey bi itam ñi ko bokkal su fekkente ni ñu ngi gàllankoorante ak yàqantey der ak xepante yo xamanteni ni nii yuy gàllankoor doomu aadama da fay ni suñu yaram dafa desee neex wala message bi ñu suñ cheikh doon jox déggunu ko lii moy objectif bi taxone suñ cheikh taxawal liggéey bi comité directeur bi itam li doon walam ci liggéey bi rek moy wacc wax ak nit ñi fatali leen li ñu andon diko def li lañ ci doon def fi lañ ci toll fi lañ jëm liggey bi daal ngeureumal yalla dong lañ ci wut kep ku nat sa bop nak ba mu won la mëno ci am ngeureumal yalla bay bo nga tel ko bayyi te seti lanen nit du yak ak dundam li ñuy may ngeureumal yalla itam moy li ni def dajje jang khassida jang alquran def salatu ala nabi dajale ci sunu wërsëg dimbalante ci sunu biir te juroom juroom yi ngeen xet ak fukk fukk yi nga xamni su ngeen ko joxe fatte ko lu reey reey la ndax bu ngeen ko joxe genn ci ñum xel te bari na ci juroom juroom fukk fukk yo xamanteni ni teena tee num gor su meeku dajale nañ ko fajal ci nit soxlam dajale nañ ko fajal ci nit langor ju ko doon la jël ci biir dajal ci nañ ci daggal ci nit buumi gàcce yoo xam ne bu du woon loola musiba badana ci am te loolu do ngay liggéey te loolu wóor nañu liggéey buñ nangu la am na ko doon laaj sëñ bàkk bu ni ko liggéey buñ nangu ak buñ nanguwut nuñ koy xàmmee sëñ bàkk bu ni ko loolu lu yomb la mu ni ko am ah mu ni ko fi mu doon boo ma dénkoonub junni ma teg ko suñu diggante di waxtaan ak yow li fekk denc ma junni bi sa xel du ci jóg li fekk denc ma ko rek sa xel du ci jóg li fekk sa xel jógu ci nag jàppal ni nanguwuñ ko boo jëfee as jëf jëf ja rafet sa xel taq ci xamal ni jëf ja nanguwuñ ko sa xel moomee ci tax waaye boo ko fàttee rek xamal ni suñu borom denc na ko te loolu lu bare bare la ci biir liggéey bi ñaata yoon lañ leen di laaj seen alal di ko def ci barab yoo xamante ni yéen ñi ñu laaj sax toppatoo leen ba xam fan lañ ko def da ngeen joxe ngir yàlla rek yoy nak yu am solo la am ci jamono yonent bi ko sallallahu alaihi wasallam sallam xamni dal dem bay faatu waye ñetti baat rek la doon wax muy aka neexon mu yees aka neexon mu mat seuk aka neexon mu bari lool ñetti baat yoy lay répété ba wuy ji borom biñ ko laaje yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam bi ni daa doon lek aw mburu bam dess ciatul bob ba ab donga yalwaan mu sarax ko sun borom wan ko yol ba ca nek mu ni aka neexon mu doon aw mburu wu mat seuk bang koy sarxe ndax li sun borom wan ci lim ko fay ci bop mburu bobbi bu doon aw mburu lay lay gëna bari moo tax mu ni ak nekhon mu mat seuk mu ni ak nekhon mu yees peq daa soloon bopp ba muy xar mu maye ko sarxe ko ngir yalla sun borom wan ko lam ci def ci yor ba mu xamone bu won mbubb mu besa mu muñ xoti ci lay ëpp yool moo tax mu ni ak a mu yees peq yoroon nit ñew jambar ko soxlam fek mu ci doon beug fa soxlam am ku ñew dis ko soxla mu jël dërëm ba jox sun borom fay ko yiwoo mu ni ak nekhon mu bari lol bam ko ci kon nga gis ni ay taxaway la yo xamanteni ni Matna baye xel def ngir yalla rek moy li am solo amna ben way bo xamé ben ne mo gentu gis sun borom wan ko niko diw xajalena ak dundam genn gi day am gi ci les day ñak bu fekke juroom ben fukki lay dund dal fanweri ati mom dana ci am xaliss fanweri ati ci les day ñak legi nak na tanal bopam bu mu ci jël koko gis koko wax koko kooku ni ko baax na léegi daal di woo soxnaam day nit ku nite ndax day waxtaan ak soxnaam woo kon ni ko daal dañ maa wax lii soxna si ni ko tànnal jëkk am xaalis waa ji ni ko ah jëkk am xaalis am xaalis ba pare ñàkk ko moom dee ko gën ba am na ma sëriñ bu koy wax ba wax mu ne maam ñàkk xaalis ji ko wut moom nee na da ngay bëgg dee door ko am waaye nee na moo ne boo ko ñàkkee boo ko ñàkkee moom bëgg bëgg a ngay bëgg a def da ngay xaw a dee boo koy wut waaye boo ko ñàkkee moom bëgg dee ngay def kii na amar ko ñak mom bëgg dem mom moom gën soxna ko su fekkee dang may laacc sama xalaat tànnal jëk am xaliss su fekkente ne sa xolam bop la doy nag doy def ko mu sukkandiku ci la ko soxna ci wax daan ni léegi tànn naa jëkk am xaliss sun borom dogal fanweeri atam yu jëk yoy day am xaliss waye soxna ci lam ci façon moy ni ko léegi sun borom jox na la wërseuk sant yalla di su ko def ci aw miñ jëf lay doon alal sun borom jox sant ci suñu borom ba mu xam ne sant nga ko ci mooy koo tànn dimbali ko ci waa ji def bu xottee mbubb ñaari mbubb lay doon mu jox benn ba néew doole su amee dépasse wutal kële dépasse bi mu demee ba fanweeri at yi mat suñ borom gisaat kooku ni ko neel sa waaja fanweeri at yooyee ma ko waxoon ni ko ci lay am xaalis ya ci mujj du am xaalis maa maa waatoon ni ku ma sant danaa la dolli te moom sant na ma bu wér fanweeri at yi ci des day continuer sant man-man bi la suñu borom jox nun ñi kenn ku ci ne suñu borom defal na loo xam ne war nga ko caasan moo xam alal la la jox lam la jox kës néew bu ko xeeb moo xam wér-gu-yaram la la jox waaye lu mu ci man doon rek delloo ko ci suñu borom waaye alhamdulilah yi kese moom cant ku yorut dara la nee nañ sant yàlla rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin te ba pare fas sa poos wutuk fi defee takk ci biir dugalaat ko ci biir loolu wexe su ko da nga comp di joxe sa kamtalaayul kàttan ñi nga tànne dee leen dimbali ngir yàlla sëñ Cheikh lii rek la bëggoon ci liggéey bi lii rek nu boole kon noo ngi leen di soññi ci ñu yeesalaat kàtt yi te xeetal ci njaboot gi te sàkk seeni nopp te dëgmal li ngeen dëgmal te xam ni ku dëgmal lu baax seytaane dana la song saytaan nag façon bu ne lay ñëwee waaye jàppal ni ku bëgg a yeexal sab dox ma ngi lay gàllankoor la sëñ Tuubaa waxoon nag ne xat amurru ala laimi yasubbuni fa madaytu suma tu la yaa nii nii sëñ Tuubaa nee na damaa romb saay-saay bi mu di ma saaga nee na ma fenati ni kii dal taxuma ko jóg waxut ak man ku bëgg a dem noon ngay def maam booy daw ku taxaw ci sa ginnaaw di la woon naa la ay ay bu ko gees bu fekkee da ngay dem ndax da lay yéexal te nga xam ne itam nag lépp looy fas na doon lu baax yéeneen ñëpp jàmm boo ko defee rek da nga am solo ndax ko la fekk nga lal fi sa mat la guddi di fexlu tek sa ngege nay tëdd mu ñew teud ci ciatu mat la ba na la do fi nelawé momit xamal ni du nelaw nit ñi mom kep ku leen yéene jàmm doom jàmm nga leen di yene jàmm and ak ñom ci jàmm ji way ku leen yene musiba musiba ma ya ci jitu ndax bo ne la do nelaw ya may jigitu ci musiba mi ndax yow do nelaw fi nga tok mom da nga fi jog ma nelaw wala nga tok fi ñu bokk di xolé waye du du ma mukk yow nga tëdd di nelaw motax ñu yéenante jàmm terafetal rafetal and bi te rafet njot kenn ku ci nekk sa morom mulai seen bola ci mom lu bax ba keroog mu lay def lanen bu la defé lanen ni japp ni jikko ma tollu ak gisinam waye yow lu bax rek nga ko eumbal li rek la bi bëggoon moy nanu yaatal and bi te rafetal rafetal kàddu yi te yene yakali pass pas yi buñ ko defé liñ bëgg lepp suñu borom dañ ko defal bu ko defé ñu leen di soñ nak ci yëngutu yi nga xamanteni mi ngi ñew ci kanam way dawlu bi mi ngi ci kanam nañ ko xel bis la bo xamanteni ni ala kulli halin dañ leen fekk wut fa tay ju woor nak jo xamanteni ni boy dem da nga am fo man a sa wet mu sedd na ci bax motax ñu war gor ci di leen ñaanal ak di leen fàttaliku ak di def lu bax sun kemt layul katan ñetti fan yi baraxlu mi ngi ñew engagement la yo xamanteni ñoko ñoo ko jëloon digg ak soxna khadi Fatma ñu ko doon taxaw ci bisub sëñ Moussa même bu du won soxna khadi sax amna lu nu war ci njabootu gi sa yu ñu xewle loolu itam ñu ngi ciy fàttali nit ñi bu baax a baax di leen fàttali itam yeneen daje yi nga xamanteni ni mi ngi am moo xam ci daje quartier la moo xam ci comité directeur yi moo xam ay assemblée générale la waaye fuñ fi wootee bëgg ngeen dolliku rek moo tax ñuy woote loolu nag mooy ànd bi loolu rek tax ñuy ànd su dul lii nag dara jëru ci wuy ndax dundub doomu aadama sayu ayu bis la wuñu ñu takk sayu ayu bis wuñu ñu takk nag saa yu jant bi fenkee ba soo xamal ni rocc nañ ci genn mat aw say nag booy rocci mat war nga xam say wa day gën di yolam te mat ga day kon nañ lu bu baax baax mel nañ mi ngi guddi bu ko defee ñu jox sëñ bàkki sàmm mu sànni ci ay kàddu bala waxtu yëkkati jataay bi yow wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngon ma jaay leen ci kàddu yu am solo nga xam ne dañ ko fi yëkkati kon ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la gërëm di la ñaanal suñu borom guddal fan yi lool te wërëj borom guddal fan yi lool te wërëj borom guddal fan yi lool